li ñu def na moom mooy seeti Mimi Touré Mimi ture nag dafa demoon tukki lu yàgg daal di ñibbisi bi muy ñibbisi am na lu mu wax ak waa Grand Yoff waaye fekk na tamit Macky Sall di ko tàllal loxo tey Mimi Touré dina wax ci loolu Mimi moo demoon waaye Mimi tey mooy ñëw kon Mimi ngi ñëw moom la seeti oui oui oui Di ambekte Demo tou ki won, demo demon te kou demyo wak djam Bon popilasyon Gran yof nan men aou masen faye Paske nengen melte ki ay rapor yof Bi ba televizyon yop di konen Mwen wane na atajman bigen amti Mimitoure ak aper Mwen ambekte Nek di pataj yon Liga khamne mwen pribi ma ganyen Men loul yop man kwe Ndi kwe le prezant de la republik Maki sal man nag damaa kontaan ndax dama ñëw rek fekk président Macky naan dafa bëgg maak Alioune Badara Cissé ñu delluwaat ci fi ñu nekkoon ma koy xamal na ko moom man Macky bu mus a jàpp ne damaa dem demoon naa tukki waaye dem woon tukki gàddaay parti bi déedéet damaa nekkoon samay activité personnelle waaye dellusiwaat naa ci li nga xam ne mooy au sein du parti fas yéene bokk ci ñuy dox tànk jàmm ba parti bi yëpp daj may nuyu waa Grand Yoff yëpp di leen sukkal xaar yàlla arafat cité millionnaire en face HLM Grand Yoff ruq jine 44 marché gang kooñu njaago robinet lawbe Grand Yoff ba mu daj gis naa nag vraiment que wéetal naa leen woon ndax xam ngeen ne ci campagne bi vraiment def nañu campagne bu explosive waaye yàlla ak dogalam buur pexem yàlla ak pexem waaye jaam bi tamit day jéem a sabablu rek pour yàlla may ko ndam boo may wax nag ne que man Mimi Touré dama bëgg nag ñu xam ne dañu war a accélérer la cadence ci biir parti bi fexe ba ñëpp joxante loxo pour mille 2017 ñu ànd falaat ki nga xam ne mooy président Macky Sall ndax alaaji Macky Sall vraiment li mu def nii bu doon beneen secrétaire général parti mun na ko ci bañ a fekk ndax dajale boole mooy tax ñun ñëpp ñu ànd doon benn kon sama waxu démb nag dafa mel ne dama dégg am benn ex ministre tudduma kenn ku ne moom yéexul woon ba ñuy accélérer la cadence man li ma fa fekkoon ba ma ñëwee dama ne nañu accélérer la cadence ndax xaw ma lu yéex xaw ma luy traîner tey nag laa gën a mën a accélérer la cadence ndax xam ngeen ne ku toog ab diir di lijjanti loo xam ne Sénégal pour mu jëm kanam kon boo ñëwee war koo mën a servir le Sénégal ñëpp xam ne ñu war accélérer la cadence. <laughs>

bi waxé accélérer la cadence président ñu né nañu émerger émerger nak moy lo xamné ne dafa war a ci souf dem ca kaw wara lo xamné ne bu féké da ngay fété ngay fóot muy gëna four dem ca kaw kon bu ñu accéléré ci émergence développement ay am kon on accélère on émerge on développe ay ca